A ah, yalla wacce ci ñun koor mu nekk farata ci ñun te képp ku ko man du la wàcc ba tabaarakallaahu kon nañ leen ci góorgóorlu ba def loo nga xam ni danañu jëriñ ëllëg ah koor yàlla nee na moo koy fayal boppam da comme moo koy fayal boppam nag ah nañ leen ci góorgóorlu waay nañ leen ci góorgóorlu ba rafetal ka di ci jàng alquran di ci sarxe mbokk yi ñu bokk yàlla nañ leen góorgóorlu bu baax ci koor gii di jokk bokk gi képp koo xam ni am na kii nga jokk bokk nañ leen jokk bokk gi nañ leen di góorgóorlu koor nag nekk na loo nga xam ni day sifa sifaa u marid mooy saafara feebar sifaa u marid boo ko déggee mooy saafara feebar saafara feebar koor comprimé la boo nga xam ni day saafara feebar ndax su fekkee ni amoon nga feebar boo nga xam ne jaaxal na la rek wooral kon boo wooree ci koor gi yàlla mën na laa dimbali insha allahu nga wér kon nañ leen di góorgóorlu kon nit ku nekk bu mu tànkooni man damaa feebar ba doo woor mën ngaa pourtant mën ngaa woor rek sa feebar boobee nga doon yëg dootoo ko yëg koor nag lépp loo doon def ci loo nga xam ni ak mooy yàlla la wala lu mën a doon nga bàyyi ko moo xam da nga daan dem di pettaawlu wala da nga daan seetlu wala da nga daan tënilu wala da nga daan wut lu mën a doon bu boobaa bàyyi loola te nag koor boo ko defee bu lekk lu xaraam nit ki dinay lekk lépp lu lew ci biiram waaye woor ba pare akalu am waali naas di lekk alali nit ñi bi xayri tiibi nafsin lu dul teewu bakkan seen comme ni ko laxdar yi ba waxee di lekk alali nit ñi ci lu dul seen teewu bakkan ah bu boobaa sa koor day wàññ sa yoolu koor ndax nit ki boo wooree bul nax kenn waaye nax nit ñeeg yooyu yëpp nga di ko def ah bu boobaa nag day wàññ sa yoolu koor bu baax a baax a baax kon mbokk yi ñu bokk yàlla nañ leen fexe ba lépp lu ñuy lekk ci koor na lew ak bu dul koor nag ndax yàlla nee na lekk leen lu lew bu leen lekk riba te ribaa nag ci njaay lañ ko séenu kuy commerçant lañ ko séenu waaye léegi fépp la ndax da ngay dégg ku naan man damay business businessman businessman yeeg yëpp nañ ko sellal suñ ko sellalee rek mën nañ cee am li ñu bëgg kon koor nekk na loo nga xam ni nañ leen ci góor góorgóorlu bu ñu dolli suñuy alal muy def lo nga xamni day nek riba ëllëg wala ngay dogoo lu araam wor ba ngon di fekk lo nga xamni lu haram la nga ndogoo ko wala nga lepp boru jàmbur ndogoo ko taf am lo ko fayé fayoo ko lepp da fay nek lo nga xamni du dagan kon mbokk yi ñu bokk yalla nañ leen di lu suñu ak suñu borom ba koor gi buñ ci duggé ñu lu bu baax ba liñ ci bëgg ñu am ko nañ leen lu ci wéru koor gi nañ leen wor comme niñ ko yalla sante nañ leen di sarxe nañ leen nañ leen di luñ ci man rek ci def ay baax baax ñu def ko kon nañ leen góorgóorlu bu baax mbokk yi bokk yàlla kon koor gi ah waaye nañ leen fexe ba suñu ci jógee rek ñu mel na liir bi door a judd ndax xam nga liir bi door a judd du am bàkkaar soo wooree weeru koor ba weer wa jeex noonu ngay mel kon nañu fexe ba mel noona nañ koy mele mooy dañuy sàmmonteeg li ñu lislaam sant sàmmonteeg li ñu koor gi sant mbokk bokk yàlla nañ leen di góorgóorlu ci koor gi nañ leen rafetal tey ñaan nag comme ni ma ko waxee ci sama waxtaan wii passé nañ leen di ñaan yàlla gis nga lépp lu la jaaxal na nga ko ñaan moo xam naa euh, naafila la lu mu mën a doon rek daañ ci dikk daañ incha allahu sax suñu waxtaan wii di dikk daañ dikk ak yéen ci façon yi naafila yoo xam ni soo koy def ci koor gi incha allahu yàlla mën na laa jàppale mën na laa dimbali mën na laa defal njéggal mën na laa defal xol xol bu nooy nepp ba tax sa xol bi lépp di yàlla di yonente alayhi salaatu wasalaam nit ki na fexee sell rek heure bu nekk nit ki na fexee sell boo fexee sell rek di yéene yàlla sellal la nañ leen di jàng alquran alquran nag moo xam bismillahi rahmaani rahim nga man bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim moo xam loo ci man qul huwa allahu ahadun qul huwa allahu ahadun nga man qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun lo ci man rek ya xam li ila fi xore nga man su fekke ni mëno ko lire ci arab man ko lire ci français baxna su fekke mëno ko lire ci dara way man nga ko jang jangum gumbaat nga dika jang jangum gumba yor su kurus di def ba nelaw fek la ci nga nelaw nga di nelaw mo upp doori fouf nga nek ci garam place ya nan doxal fi ak demal fi ak def na niek yoy yep wala nga dem ci geej ga di xol nak sulu noonu yoy yep dang kay koy moytandiku ndax nga am yolu koor mbokk yi ñu bokk len gor gor lu bax إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتم وما التوفيق إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته